asalaamaaleykum dal leen ak jàmm dañu koy door ak Sud Quotidien mu ñuy waxtaanee wàllu élection locale ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 rawatina nag kujje gi nga xam ne daal lenn moo leen war mooy bennoo bu ñu sukkandikoo ci auto yéenekaay bu groupe Sud Communication kujje googu daal dafa jëlee doole ci li fi xewoon ci diggante weeru février ak weeru mars rawatina li ñu tegoon ci ndodd Ousmane Sonko bi jiite Pastef les patriotes ginnaaw gi nga xam ne nag am na ay yëngu-yëngal yu amoon suñu réew ba ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan ñi ci des am ci ay gaañu gaañu ña ca des it daal seeni alal ñu yàqate ko suñu naataangoo yi di xamle ne daal dañoo xamle ne kujje gi ni mu jógee ci loolu ba tey daal dañoo taxaw temm ngir boole seeni doole ngir jëmale ci local yi nga xam ne moom la ñuy waajal loolu yépp nag ngir mën a daal dëkk bu baax a baax ki Sall ak i ñoñam ñi nga xam ne ci atum 2012 ba tey daal bépp élection bu ñu fi organisé ñooy jël raw gàddu bi wante nag ndax loolu le dana mën a antu li ko waral mooy ñu bëri ñu nekk ci bopp bi ku nekk daal danga am ay bëgg-bëgg teg ci nag di xëccoo bu baax a baax di wane ni yaa àkk ndax loolu yépp nag du ñëw nërmeel seen boobu lee lii yépp daal mën na tax ba sàkkuteefu kujje gi daal ngir jàkkaarloog Macky sàll mu bañ a antu ñu des ak kujje googulee rawatina ci diggante Barth ak xalifa ak l'observateur bi ne daal mbir yi seddul dara li waral loolu le mooy kàddu yi nga xam ne Barthélemy Dias moom la yëkkati jëmale ci candidature am ci mairie bu Ndakaaru bu dee jege ñaale Barthélemy Dias yi nag ñu ngi xam ne ne daal li tax mu amee biile taxawaay mooy daal fexe ba kii di Khalifa Sall génn ci tekk-tekkaaral bi mu nekkee mu teg ko pression beneen wàll wa nag ñi nga xam ne seen xel daa màcc jëm ci wàllu politique ne ki nga xam ne mooy meeru Mermoz Sacré-Cœur dafa bëgg a mébétu ki nga xam ne moo jiite mouvement taxawu Sénégal di Khalifa Sall nga xam xam ne lenn ko soxal fi mu toll nii daal mooy fexe ba kujje gi ñëw dankaloo nekk ci wetu soo am war di nii moo tax suñu naataangoo yi ne daal ala kulli aalin dinañu gis jàkkaarloo ci diggante Barth ak soo am wax di nii mbirum mi Dias ak Khalifa Sall soxal it waa Témoin Quotidien ñu jox ci kàddu ñi nga xam ne daal seen xel daa màcc ci wàll wii ñuy xamle ni sàkkuteefu Barthélemy Diaz jëmale ci miiru ndakaaru nag war naa mën a am donte nag Khalifa Sall àddoogu ci moo tax it professeur mussa Diaw bokk ci université Gaston Berger ni ci diggante Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall mbiri seddul dara ni ko nit ñi di yaakaaree ñu des ba tey ci wàllu politique waxtaanee wàllu bennoo rawatina nag waajal bi nga xam ne moom la ñuy waajal bu baax a baax wàllu local yooyu lee te seddul dara bu ñu sukkandikoo ci laas mu ñuy xamal ne ci Kaffrine Tamba Fatick Bignona ak Ziguinchor xëccoo baa ngi ne fa kuur ku nekk daal di wane ne dangaa samp sa ndënd xiiroo ak ŋaayoo yi ñu ne meeku ci APR na rëccul it waa lii quotidien Arona Dia ak Abdou Karim Sall daal wu ñu taal moo tax it kenn ci jege ñaale Arona Dia boobu di Sékou Dia di xamle ne Abdou Sall daal dafa jaaxle moo tax mu bëgg daal ne lépp loo xam ne dañ koy teg ci dam ci Arona Dia bi la bawoo lii yëpp nag mi ngi bawoo ci ñenn ñii ci programme emploi ñu dénk wàllu alam bi di Abdou Karim Sall daal ci wàllu recrutement yi yim doon amal jëmale ci ndaw yi faree ci Gorka Jeere daal jaarul yi ba tey ci wàllu local yooyu la ñu waxtaane wàllu sa Seck ak jege bi mu jege kii di président Macky Sall jaxasoog moom lool bu ñu sukkandikoo ci l'info donte sax nag déggoo na bu baax a baax ak parti état bi ki jiite parti réew mii di sa Seck daal bu yebu rek mu def nank bu dee daal gën a des ci bopp commune bii di Thiès nga xam ne lu ko ñor la te moo ci mësa teg loxo ci jamono joo xam ne nag partem ñu bëri jóge nañu fa ci atum 2012 jàpp tey jilee ñu jóge ci langue politique bi jàll ci leneen muy xeex bi ñuy xeex wàllu mbas mi si suñu réew te ki jiite banque mondiale di ko rafetlu bu baax a baax ci biir le soleil David Malpass rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne moom lañ ci amal mi nga xam ne loolu le ci jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi nga xam ne dañoo fare ci Afrique sowu jant ak diggu l'Afrique ñu waxtaane nag lu doy waar li nga xam ne moom la ñu libération ak yeneen suñu naataango yëgee tey jilee mu jëm ci faat bakkanu kii di lotal yi Mole ci HLM Grand Yoff ki kat faat nag moom ci korite gii rek lañ ko génne woon ci kaso gi jaarale ko ci grâce présidentielle moom moomulee di doomu Guinée Bissau di siw Kabi Jaata nag ci atum 2020 dugg na ci kaso ñetti yoon moom daal ginnaaw gi mu naanee pierre-am daal la tëj kaas bi gaañ ci si kanam ndem si yàlla si balaa mu koy jëm ci xol bi loolu it soxal bu baax a baax l'observateur mu dellusi ci lu ñaaw li nga xam ne moo amoon ci HLM Grand Yoff ñu waxtaanee ak waa Lanket nag li nga xam ne moo du Mamadou Seydou Diallo moom nag dañ ko jaawale ak ki nga xam ne mooy Akon Akon bii nga xam ne ci mbir yu seetul dara daal gën a siiw Mamadou Diallo ñu teg ko loxo ci weeru mars mu nekk ci jamono ji ci kaso bi Akon bi ñu doon wër te ñu jaawale koog moom teg nañu ko loxo lu yàggul dara moo tax it njabootu sey Seydou Diallo ñaawlu nañu mbir mi fu ñaawlu yem teg ci nag ne nañu ko setal ñu jàll ak les échos waxtaanee li nga xam ne moo xew fële ci diggante Israël ak Palestine rawatina jéego yi nga xam ne moom la ci gi sàll di amal fële ci mbootaayu xeet yi ambassadeur Cheikh ña talaata bi ñu génn moo jiite woon liggéey bi nga xam ne daal li ko tax a jug mooy jàppale waa Palestine ci xeex bi lee ñu jeexale ko tàggat yaram door ko ak waa saat bi waxtaanee jeexitalu saison suñu gaynde yi lee ku ci mel ni Mendy Mané Gana jàlloo ak ku Koulibaly mu ñu xamal ne mbir yi du yomb dara ñu des ak suñu gaynde yi ak record bi ñuy waxtaanee wàllu Gana Gueye ne Paris fi mu toll nii sax buggul tàggook moom benn yoon ñu des ak waa record di ñu waxtaanee wàllu lomb rawatina jàkkarloo bu njëkk ci diggante rëg-rëg ak guy gi dibéer ak jàmm ci TFM xeexu làmmiñ daal la nar a doon ñu jeexale ko suñu lomb biy waxtaanee wàllu booy Niang nar a dëkku Tapha ak bàll Gaye 2 Boy Niang daal bu yeboo mu waajal boppam bu baax a baax lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Élection locale du 23 janvier 2022, l'opposition au tester Benno, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique vraisemblablement ragaillardé par la sulfureuse affaire de mœurs et où la procédure politico-judiciaire intentée contre Ousmane Sonko de Passif les Patriotes et les émeutes qui s'en ont suivi avec leur cortège de morts et de blessés, l'opposition serait, annonce-t-on, dans la dynamique d'une union générale des mars en perspective des élections locales du 23 janvier 2022. L'histoire souligne le confrère de l'avenue Bourguiba de pouvoir contester enfin avec brio l'hégémonie de Macky Sall et de son camp qui ont raflé depuis 2012 la totalité des scrutins organisés au Sénégal. Reste cependant à savoir si cette opposition-là saura réussir son bénin et de se départir des ambitions divergentes de ses têtes, de ses querelles de leadership, voire des retours de bâton consécutifs aux jeux ou doubles entretenus par certains de ses membres, autant d'impairs qui ont toujours plombé les croisades des opposants contre le pouvoir de Macky Sall. Restons avec l'opposition, avec le duo Barth Khalifa, avec l'observateur qui relève un coup de pression. En effet, selon le confrère, les nombreuses sorties de Barthélémy Diaz sur sa candidature à la mairie de Dakar peuvent être analysées sous plusieurs angles. Si dans son entourage, on estime qu'il cherche à mettre la pression à Khalifa Sall, qui s'est emmuré dans un silence, des analystes politiques pensent que le maire de Mermoz Sacré-Cœur est en train de griller la stratégie du leader du mouvement Taxawu Sénégal, dont le calcul secret consisterait à regrouper toute l'opposition derrière Soham Wardini. Barthélémy Diaz serait-il un leurre pour Khalifa? s'interroge le témoin quotidien. Les analystes politiques, dans leur majorité, trouvent légitime la candidature de Diaz fils pour la mairie de Dakar, même si elle n'est pas encore bénie par Khalifa Sall. Pour professeur Moussa Diaw de l'UGB, la situation entre Barthélémy Diaz et Khalifa Sall est plus complexe qu'on ne le croit. Au moment où Benno est à l'épreuve des locales, informe l'AS qui renseigne que la tension est dans l'air à Kaffrine, Tamba, Fatick, Bignona et Ziguinchor. La préparation des locales ne sera pas une partie de plaisir pour la mouvance présidentielle, minée par des rivalités internes dans toutes ces localités. La guerre entre apéristes n'échappe pas également à l'I Quotidien qui indique que Aronedia Abdou Karim Sall, qui se réclament tous deux être des maquistes purs et durs. Pour Sékou Dia, collaborateur de Harouna Dia, Abdou Karim Sall est un homme désemparé qui cherche à se tirer d'affaire en accusant Harouna Dia d'être le commanditaire des attaques contre sa personne. Tout est parti des supposés recrutements clientélistes des jeunes d'Orkadiéré dans le cadre du programme Emploi vert. Au moment où l'unité de Benno laisse à désirer à l'oreille des locales, l'alliance de Idi avec le président Macky Sall se précise, informe l'info. Idi à quitte ou double. Nonobstant, cette alliance scellée avec le parti État, le patron de Rewmi Idrissa Seck devra pour autant sortir le grand jeu pour conserver Thiès, qui est sa chasse gardée. Ceci dans un contexte où son parti s'est totalement vidé de sa substance avec la saignée qu'elle a connue de 2012 à présent. Quittons le terrain politique et intéressons-nous à la résilience du Sénégal face à la Covid-19 avec le soleil, le soleil qui relève le satisfecit du président de mondiale. David Malpass magnifie les efforts de notre pays. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse avec des médias couvrant l'Afrique de l'Ouest est centrale. Intéressons-nous à présent aux révélations sur le meurtre de Lotali Mollet aux HLM Grand Yoff. Gracié pendant la Korité, le tueur a été déféré à trois reprises en 2020, selon Libération. Ressortissant bissau-guinéen âgé de 21 ans, Siou Kabitiata a cassé sa bouteille d'alcool avant de cibler le visage de la victime, puis la région du cœur. Restons avec ce meurtre avec l'observateur qui revient sur le film. atroce du meurtre de l'étudiante congolaise. L'enquête s'intéresse à la présumée erreur judiciaire, le martyr de Mamadou Seydou Diallo, confondu avec le célèbre caïd Eken. Mamadou Diallo a été arrêté en mars écroupi en prison. Le vrai Eken a été arrêté récemment. La famille de Mamadou Seydou Diallo crie au scandale et réclame justice. Au moment où Macky multiplie les initiatives aux États-Unis concernant le conflit israélo-palestinien. informe Les Échos, qui signale que l'ambassadeur Chernion a dirigé mardi dernier les travaux pour un support parlementaire international à la cause palestinienne. Le Sénégal plaide également l'arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. En sport, Sat le quotidien du sport nous parle de la fin de saison de feu des Lions, notamment Mendy, Mané, Ghana, Diallo et Restons avec les Lions avec record qui revient sur les performances du Sénégalais. Paris ne veut plus se séparer de Ghana. Restons avec Record qui parle également de lutte avec le premier face-à-face -face dimanche sur la TFM. Regrette Guigui, ce sera la guerre des mots. Terminons par Sunu Lamb, Tafatine, puis Balla Gaye 2, Boy Niang 2 et entre le marteau de Tafatine et l'enclume de Balla Gaye 2, Boy Niang 2 devra se démultiplier pour s'en sortir. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.